ate àdduna yàqu ci dara ate Sitor Sène nekk membre ci structure Sall Ngari production ah Olof Ndiaye nee na looy bañ weesu bu ko jàppal bés uh-huh. nous sommes le 4 novembre 2023 au de ville de Kaolack par Sall Ngari production ate Grand Sitor tey ñoo ngi si préparation yi maanaam installation pour lamb ji naka naka ngeen ngeen waajee lamb ji waaw Zé maa ngi leen di ziare bu baax di nuyu waa Kaolack lépp di wax ne ñu ngi fii si préparation bi nga xamante ne Euh, moom mooy euh, Salingari production ñu am fi un mise de un million cinq cent ñu tuddee ko docteur Macoumba euh, préparation bi nag nii la wax dëgg fa yàlla di ko waajal rek ba ngoon. waaw installation bi nag bon am na tuuti coono ndax wax dëgg fa eh, lu mel ni Kaolack bu ñu sañoon mu am stade nga xam ne da ngay rek. dugg stade stade doo tibb suuf doo def dara mais suuf yaa koy indi yaay indi say bagage yaay indi say barrière affaire yooyu loolu dafay xaw a métti quoi dafa xaw a métti trop si lu mel ni Kaolack dafa métti. dëgg la waaw lu mel ni euh, Kaolack euh, Kaolack dafa bokk ci làmb euh, boo xoolee suñu. CNG le président fi la dëkk kon war na xam liy làmb kon nag euh, war nañ ñu dimbale si stade boo xamante ne tey suñu amee làmb duñ ci tiit dara duñ xalaat leen dañuy ñëw directement dem suñ stade dem tëgg làmb waaw loolu daal bëggoon naa ko lancé fii. lan la amateur yi mën euh, nee naa leen tey moom dinañ am cosaan ak dinañ am ay surprise yoo xamante ne tey fii si Kaolack euh, ku kele serelalaye gutuna nakanelo ten nda kene koy ku gutuna nakan kane ten yam ka ngor ke pijit kat animation bi mbayang lum la ak mamongom waaw macha allah je acca waa général di kontaan rek vraiment yéen moom ci kaw sa kanam rek vraiment li ngeen di def neex na macha allah fu lamb am yéen a nga fa fu programme am yéen a nga fa vraiment Vénératri bi si kaw si karam di leen ñaanal rek yàlla ngeen toog ba am seen i télé yi télé macha allah mu tas si biir àdduna bi tas si biir Sénégal kontaan nañ see. bonne chance merci beaucoup. yàlla si yàlla def réussite. amiin yaa rabbi. ngi lay nuyu. mang lay fay bu baakha baax Papis général waaye ñu ngi sant yalla bu baakha baax Papis tay ñu fekk leen fii Kër Reville ci installation lamb sunu jigéen Njira sal borom Sall Ngari production naka ngeen dundee walum installation baak yu mel non non content rek content rek Njira mom ñu koy ñaanal yalla nako yalla may réussite bu baakha baax parce que jigen la tu jigen nak buy def dara di di volontaire ñep dañ ko wara a pour mu am réussite parce que jigen la ñun ñep jigen moñu jur bon nak vraiment Njira ñu ngi koy ñaanal réussite bu baakha baax diko ñaanal jam di ko ñaan itam yàlla na ko yal may ndam ci li muy wut parce que xale la xele bugg liggéey la te itam vraiment mu ngi ñëfe bon nag euh, dëkk doomi Saloum bon nag waa Saloum yëpp nañ ñëw jàppale ko mu nekk itam drapeau suñu xarit suñu mbokk mu Makumba Diouf xam na Makumba moom Makumba benn la Sénégal bon séeréer bu ñu amoon tey ñaari Makumba ñetti Makumba billaay wallaay dañu raw parce que Makumba daa bëgg culture encore Makumba dafa bëgg cere bi mu doon daf koo bëgg ba nag ku rek doomi séeréer rek war nga tey boo jullee pare nga ñaan Makumba yàlla ko yàlla may réussite yàlla may ko grade bu mag a parce que bako amee am waaw nañ mën a am benn boo xam ne nii tey ku bëgg a tëgg làmb fa ngay dem directement doo jël sees la parce que xaw na métti loolu acca demal waaye Papis dama la rek gis nga ñun ñun dañu am lu ñu miti mhm. ñun waa Kaolack parce que tey boo xoolee tey eh, njëbel am na arène Gandiaye am na arène sookoon am na arène Ngooj am na arène Warjaxal am na arène ah nga xool euh, Njebel am na arène nga xool nag région de Kaolack ñu ne te boo waxee lambu Kaolack nga ne Dakar mu ne Kaolack commune te ñu mënuñu am fu ñu tege lamb ñun waa Kaolack mu ne gàcce boo xam ne gàcce bu rëy lay doon nga xool ñaata écrit moo nekk Kaolack douze écrit muy Kaolack yoo xam ne ay xale kala ñoo fi ne nag ay doomi Kaolack di di di ko tàggat ñu ñu ñu def entraînement pour bëre yow boo defee boo boo defee tey na ma yàlla baati ma boo toogee tey nga toog tey entraîné bu fees amoo foo bëre rom sa yaay mu xiif mbaa nga rom sa doom mu feebar mbaa nga rom yaay mu feebar amoo loo ko yóbbu bon nooy def danga nga def leneen bon nag autorité Kaolack yi war nañu dimbali doomi Kaolack yi dimbali ñu ñu waa làmb ñu am fu ñu tegee làmb lii gàcce dëggantaan la. fii fii tey. Mhm, location eh, kii kii Serigne Mbuub. Mhm. mooy maire de Kaolack. Mhm. mooy maire de Kaolack tey fu mu ne ñu ngi nii tey fii liñ ko luyee tey deux cent cinquante mille moom lañ ko luyee. mom lañ luyee fii te ñoom 300000 sax la waxon man ma wax di wax di dañ ñaan bu ñu def ko 250000. Ah, vague la yow nga def nga def 250000 ci vague bi mhm, retourné wut tuut ñaan sa suuf idi ko mhm. bu nga fay bu nga fay géwél bu nga fay tribune bu nga fay ay siège bu nga fay barrière bu nga fay euh euh, euh sécurité ah bu nga fay bu nga fay euh, ki CNG ah lolu xam nga lu miti la ah lolu départ mag mag mag la bo na ñu ngi ñaan autorité kawla yi nañu dimbalee ñu mën a am arène arène boo xam ne dañ fay tegalam ñun waa làmb xam ne lii ñu ñoo ko moom wax itam suñu suñu suñu suñu suñu waay boo xam ne moo fa ne doomi Kaolack boy mooy Bira Sène doomi Kaolack la moo nekkoon président CRG de Kaolack ñaata at bon na dem na Dakar xam na conséquence bi Kaolack am ci làmb am na xam na ko bon na ñu ngi koy ñaan di ko laaj appel doon def arène fii xam ne Kaolack ñoo ko moom loolu la ñu ñaan ñaan yàlla acca bu ñu jógee loolu ñu ñëw waaw le 9 waaw le 9 décembre. waaw le 9 décembre. le 9 décembre. mooy sargal Pape Demba bi tey. mu nekk lam boo xam ne. maa ngi oo Sénégal yëpp ñëw fi mise bi nekkee 3 millions mooy mise bi. bu soobee yàlla waaw. le 9 le 9 décembre. fan lañ koy tëggee. Eh, maa ngi xool nag maa ngi xoolagum quoi parce que loolu il faut ma ma ma calcule daal diggante stade fale wala fi maa ngi xool daal. waaw xamaguma daal lii waaye maa ngi xool. lan lañ ci a xaar comme surprise ak ambiance ak yu mel noonu. ñu mën a xaar mooy vraiment mhm. tey ambiance dina am parce que maa ngi oo ñëpp te xam ne lambu aj moom bu ma tegee bu ñëpp day ñëw mbër itam maa ngi laas appel parce que mbër yi mbër ne mbër mu jaar sama loxo mhm. bon nag maa ngi bu defee ne aj bu moo xewle man xewlu ma mbër yi ñoo xewle bon nag mbër yi maa ngi laas appel ñoom ñëpp amul lu pois léger amul raw gadu amul poids lu yëpp nay ñëw parce que man li ma xalaat mooy def ko trois catégories lola laa xalaat parce que 3 millions la. Mhm, bu dee nag ku nekk sa bopp. Mhm. parce que loolu mooy yone mhm. fek ñu ñoo oté nek itam euh, entraîneur équipe nationale bo euh, régional de Kaolack bu ma defee loolu am équipe bu ndaw bo xam ne dañ ko bëree parce que ma mëna xol ci biir catégorie yi ma mën di tan loolu bëgg naa ko ak wa Pape waaw légui nak wa CRG la bëgg a moy président de CRG de Kaolack moy maam ko xanaa ma mu ko ñaané xamna bo boo tul dama may loolu parce que vraiment ku bëgg lamb la xam na lamb te fii itam vraiment man dama koy remercier di ñaan rek yàlla ko yàlla gën am moo gën a am ndam. parce que boo amee ndam ñu am ndam moom maam koor. macha allah bon ci moom bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw kontaan naa. waaw le 9 décembre. le 9 décembre. Euh, samedi le 9 décembre. Mm-hmm. fii à Kaolack. Mm-hmm. mooy Ajba production. moo war a teg fii 3 millions. Mm-hmm. di sargal Pape Demba mu nekk drapeau Pape Demba. bu nga décorer euh, jéemaan dinaa ko décorer. dinaa décorer Dame. daam Jafala. dinaa décorer Laye jaañ dana ko décorer dinaa leen digga décorer itam euh, euh, kii euh, kii Diagne. Ablaye Diagne dinaa ko décorer. dinaa décorer itam kii Diagne. Cheikh Diagne dinaa ko décorer. mooy mooy quatre décoration daal dinaa ko def ba soobee yàlla. waaw parce que ñoom itam ñun gis nañu luñ luñ sonn ci lamb Kaolack bon nañu itam amna ñu vraiment pour ñu defal leen honneur kaolax parce que ñom lañu am ñom itam waaw merci beaucoup papis contane na ci yow itam yalla yalla japp japp yow itam waaw yow itam sa bes mu ngi ñew wa inshallah sa bes mu ngi ñew papis parce que gis na ni nga sonné ci lamb ji te yow amu lo defu ci lamb mm-hmm, yow mbor nga won mm-hmm. amu lo defu ci lamb mm-hmm. bon bo tourner encore at di yégalat encore lam ci kaw ñun wa waa kaolax dañu offert ci yow di la ñaanal rek yalla yalla may jàmm contane ci yow baax baax merci